jërë ngeen jëf diw dee na ndax xiif neexut a dégg waaye bu ñu moytuwul danañu ko dégg te lépp nag mi ngi nar a tukkee ci fitna ji coronavirus bi indi ci àdduna bi l'observateur nañu ONC yu ci mel ne programme alimentaire mondial waa FAO ak waa UNICEF ñoo ngi yëglu nee nañu coronavirus bi ak li mu yàq ci àdduna bi tax na réew yu bari ci Afrique rawatina yi ci sous-région bi dina fa ñoo xam ne nit ñi ñu dem ba lu ñu lekk te leen te ci réew yooyee loolee di yoot ci sous-région bi Sénégal bokk na ci fukki millions yi doomi ak ñaar yu a ñàkk lu ñu lekk moom la waa PAM programme alimentaire di ragal Jean-Pierre Senghor di secrétaire exécutif conseil national sécurité alimentaire nañu ci biir l'observateur ci diggante weeru juin jàpp août 529 625 ménages nar nañoo dund ak insécurité alimentaire soleil national nañu fii ci Sénégal kilifa yi ñoo ngi seet nu ñu mën a def ba relancer économie nationale bi nga xam ne coronavirus bi da koo gësam bu baax a baax doomi sénégalais ci bitim réew di les sénégalais de la diaspora la tribune nee nañu ñoom it coronavirus bi sonal na leen bu baax waa horizon sans frontières weddi yi waxoon ne juróom-ñett fukki sénégalais ak juróom-ñett ñoo faatu ci bitim réew ndax coronavirus bi nee nañu ëpp na ko téeméeri doomi Sénégal ak benn ñoo faatu ci bitim réew ndax coronavirus suur soit nañu fii ci réew mi nit ñi ñoo ngi fi dund jaxal na man ndax covid 19 bi ne ci 48 heures yi wees mu di démb ak ci ñoo kenn ku ci faatu vox populi nañu kookee mooy ñaar fukki la doomi aadama ak juróom benn bi faatu ci Sénégal ndax coronavirus bi mi ngi amoon juróom-ñaar fukki ak benn jigéen la woon dëkkoon jàmm gën ci samedi ji ca waaye démb ci dimanche ci la am takk bu wér ci ne dafa corona woon Vox Populi wax na démb ci rajo Futur Média ci émission Grand Jury ne coronavirus bi ak ëppal da ci am wax ji bari ci am na lu ñu ci wax lu ci bokk la ni ñu ñu bëgg a gëm loo ne noonee la coronavirus bi gaaw a wàllante demewul noonee moom docteur Thior nee dogal yi président Macky jël bu yàggul jëm ci woyofal yenn yi lu baax la waaye waru caayam ndax lu ci mel ne état d'urgence bi ñu nekk gisul njariñul di ko continuer mu ne it ñëpp gis nañu ne confinement bi jariñul dara lu jëm ci stigmatisation gi ñuy wax di daw gi di leen sa ji xef docteur Pape Moussa Thiokh ne waa ministère de la santé ak communication bi ñu ci def ak ni ñu koy doxale moo waral dawante bi diggante Senelec ak Akilee coow laa nga mel ne toolu mbooyo ubbi les échos waa Sutelec mu di syndicat unique des travailleurs de l'électricité ñoo wàll si ci xeex bi takku ba dëgër fas yéene xeex lu rëy seen bëgg-bëgg gudd gàtt moo di contrat bi dox ci diggante Senelec ak Akilee ñu daggal ko ndax nee nañu contrat ba du lu baax jëfi sàcc la jëfi njuuj la jëfi yàqkat la te it Baaxe Akile am na yeneen ñaari contrat yu ñu bëgg a teg bii mi ngi soxal production bi ba ca des soxal distribution bi te loolee ñoom waa Sétélec fukki xel xalaatul ñu di ko nangu baa ñuy toog di ko seetaan muy am ca Sénélec les éco nañu keroog dégg nañu conseil des investisseurs sénégalais ñuy jàppale Akile loolee kenn ci ñoom di Abdourahmane Diouf moo ko defoon te mbir yi na ko wax xat waa CIS nee nañu ànduñu ci ak moom dal a woor waruta nangu di bokk ci fu ñuy saax-saaxe ak di fa caxat-caxatee loo xam ne ñépp ko bokk nañu bokk daje ji ci l'observateur ay xew-xewi jamono yu yéeme moo fa nekk doore ko la xew ca kees mu di seen nas ndaw soo xam ne jëkkëram policier la dafa am wujju jàpp doomu wujju yi bëggoon ko pandar ngir mu faatu ca caaro yi moom nit faatu na fa yëral xët mu njëkk l'observateur ka fa faatu xadimatu jàllo la tudd di seen nas ndaw soo xam ne ab dëkkandoom moo jël sombi bu tàng sotti ko ko mu jaare ca faatu jërë ngeen jëf coowal ngi nii loo xam ne bu ñu moytul moo nara suul coowal coronavirus yi ci réew mi coowal faux la anki dina kay nañu faux yu toll ci mille junni milliards ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk benn di ay faux billets ñoo ko jàpp ñu ngi ko jàppee ci diggante Yoff ak Zac mu di leneen coowal faux lu nara wunee ci réew mi ginnaaw bu coon sekk beeg bu Seydina Fall bu gazeli anki dina kay nañu ci coow woon nañu leen lool ci nguurug Abdoulaye Wade gi ubbil yéenekaay bi junni ak juróomi téeméeri milliards yoo xam ne lépp ay faux la moom la fekk ci ñoom sandarma yu section recherche bu fédéral bu ñoo leen teg loxo ca mbaaw fale leen tegi loxo ki jiite yëf yi maanaam cerveau bi l'Observateur nee nañu Babacar Fall la tudd am na ñu bokkal tuuma yi mu di Daouda Ndiaye Badara Fall Alioune Diop Mouhamadou Makhtar Lay Samb Fallou Cissé ak Mbaye Fall démb ci altine ci paquet benn milliard yi euro ci ay faux billets moo ca nekkoon ba ca des juróom-ñeenti millions yi euro beneen bi juróom fukki millions yi euro lépp lépp toll ci mille cinq cent ñaari homme politique ci fi turam mi ngi commencé F santam S ki ci des turam mi ngi commencé P aw santam D kenn ki déposé woon na sax ci wote présidentielle yi wees ñoom ñaar nag bi nañoo donte ñi ngi leen di ci fi taxul ñu yóbbu leen ca kanamu procureur Seydi mi jiite parquet bu ñu leen jàppee ak ba ñu leen jàppee la ñu leen wax lu ci nekk l'observateur jàpp na ne dafay jàpp ak li diggam ak Senelec loolee moo tas kuréel gi keroog dimanche ñu waa CIS amal nañu ab réunion d'urgence ci seen bureau xottee tareet jàppale docteur Abdourahmane Diouf ci bu nuppi nag sàkku ci moom mu delluwaat gannaaw ci soutien gi mu doon soutenir ak li fa mu ko jële mu delloo ko fa Abdourahmane Ndiaye njiital sagam journal bi nañu démissionné na ci CIS ndax nee gisatu ca boppam keneen ku ca démissionné desi ko nañu moo di Thiaba expert financier la moom it bàyyi na te naru caayam ndax fan yii di ñëw ñoo ngi séentu ñeneen ñu nar a leneen coow lu am ci biir club des investisseurs sénégalais lise ko mi wax ne moo di fukki millions yi nga xam ne képp kuy bokk ci club bi moom ngay joxe am nay investisseurs yu taxaw di ca laaju leeraange opérateur de téléphone bii a caatu tuut sañu yor akas néew jaare ko ci ay promotion yoo xam ne ak njublang ak naxaate ñoo ko lal di ci lekk crédit nit ñi témoigné nañu lii mooy firi lii mooy toj jërë ngeen jëf magistrature gi yëngu na yëngal yéenekaay ba ñuy xëy di yëngu l'observateur nañu li yëngal magistrature réew mi démb la ko yëngal ginnaaw ndajem conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon def ca palais de la république mu doonoon ci teewaayu président de la république Macky ca dogal yi fu juddoo bokk na ci ne Mamadou Badio Camara ma ne woon premier président bu cour suprême nekkatu ko dem na retraite ku ñu naan Cheikh Tidiane Koulibaly procureur général ba ne woon ca cour d'appelum Ndar Désiré Ali Ly moo ko wut Henri Grégoire Diop ñu yóbbu ko ca ministère affaires étrangères ca wetu Amadou Ba Moustapha Seck ak Samba Ndiaye Seck yi ñu fi doon jaaba jonge fan ji la génn ndax wax ju ñu waxoon ca session comité des droits de l'homme bu Nations Unies jëmale ko woon ci mbiri Karim Wade taxoon ñu tëbal leen ñoom ñaar ñëpp dalaat nañu ci ñëwaat nañu juge Ibrahima Ndoye mi daane magistrature bi ba fu ne aw xob fare fa Badio Camara tëb na Cheikh Tidiane Koulibaly toog na Ziz Demba Kandji moom it jóge na ci cour d'appelum Dakar dem gaara ji ca garage bu présidence de la république Sud Quotidien nañu ak salfaañoo gu rëy la nimmiku ci biir magistrature réew mi loolee ginnaaw ndajam conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon def Cheikh Tidiane Koulibaly moo jiite léegi cour suprême Demba Kandji teere ji palais de la république Malick rëy ñoo am ci biir magistrature bi ñu xëy jàng ci xët mu njëkku la sénékaay leçon yi ñu mën a jàngee ci coppite yu rëy yooyee ñu nemme ko ci biir magistrature bi benn ca moo di bi gis na ne tribunal grande instance yi ak cour ñoom la ñu gën a lëbëje ci dogal yi ginnaaw magistrat yi nañu wax ci avocat yi maître Demba Ciré Bathily maître Aladji Diouf maître Assane Dioma Ndiaye maître Baboucar Cissé maître ak maître Seyni Ndione lise ko ne nañ ñoom ñëpp ay yoo xam ne l'homme des affaires bii di Abdoulaye Sylla moo leen jël ngir ñu ñu koy song ak tooñ ak ŋàññi gi ñu koy ŋàññi moo waral moom Abdoulaye Sylla mu ne basta këram nga ñu daaneel ca Saly bu noppi ñu ko def bëgg a wëlbatiku di ko tam dëmmul loolee la ne du ko bàyyi mu jàll moo waral mu jëli avocat ngir ñu toppal ko yëf yi ci yoon kenn ci avocat yi di maître El Hadji Diouf ni ñu ci xët mu njëkk Les Échos Abdoulaye Sylla du dara lu dul ab patriote buy taxaw di xeex ngir développement réewum mètre carré bi gën a néew mësi su ko ko may ci réew mi lu mu am aw ñaqam a ko ko may li ñuy def nag mu di appel d'offre bu ñu teg mu gàñe ko bàyyi concurrence bi ñu toog ni xutti xool loolee mooy ñurum ñurumee xolu ñenn ñi ba tax ñu di ko xeex jeex maître Demba Ciré Bathily ne ci journal Les Échos waa Descos yi toj kër Abdoulaye Sylla gi li ñu def moo di jaay doole yàq alalu jàmbur ak violation de domicile maître Seyni Ndior na tegal ñu ci ne Abdoulaye Sylla miir bu mu tabax ngir clôturer këram ay baies vitrées yu mu def ca këram garage bu mu fa def ngir wataam ak i toilette extérieure yu mu def ca kër ga loole la ñu koy toppee ba tax ñu toj këram kër gi la maison toj na journal Les Échos nañu moo di club des investisseurs sénégalais ubbil yéenekaay bi kuréel gaa ngay gën di tas ña ci nekkoon tey bàyyi ñoo ngi gën di bari ne Madiambal Diagne ak Khadim Kébé moom Ndiouga Kébé borom Focus SA ñoom it nañu ci club des investisseurs sénégalais coowal foo bii réew mi jamono ji anki dina moom la xëye xëy di gëstu ci xewit woowee ak li mu mën a journée loraange ci koom-koomu réew mi Basiru Bey dip économiste ne waa anki mbiri foo bii sàggane ko ñàkkoo lijjanti moo di toog di seetaan réew mi di suux Vox Populi nañoo ñaari homme politique yi ñu tudd ci fii ak di ruumandaat naan seen loxo ba mu a ndottam mi ngi ci xët mu njëkkul observateur Mamadou Kébé la tudd ca Touba la dëkk magam ju ñu naan Fallou Kébé moom la ñu fekkoon mu faatu ci biir benn force ñu ci doon tuumaal Mamadou Kébé police ñëw jël ko yóbbu téye ko ci garde à vue l'observateur nañu foofee fa la def AVC jaare ca faatu moom it fekki mag ja Fallou Kébé du Mohamed euh, Ndiaye gannaaw bañ la nuyoo wat Ndiaye ñu dooree kook euh, yéenekaay bi di l'observateur la ñu koy doore dikk ak ñun ci magistrat séné magistrature Sénégal ak coppite yi ci am démb ci ndajem conseil de la euh, supérieur de la magistrature ci la ñu ko jële bokk na ci tijan Tidiane bali di frère ci Abdoulatif Koulibaly moom la ñu def léegi premier président bu cour suprême Covid 19 bi ak it test ya ñuy def li mu coûté Sénégal ba ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai yëf ya ci ñaari milliards l'observateur moo dikkee loolee dikk naag ñu nit ci coowal faux billets li sandarma yi teg loxo teñ ci doon tudd Farba Senghor ak Pape Diouf yéenekaay bi Pape Diop yéenekaay bi nee nañu ñoom ñaar ñooñu weddi nañ ko ba mu set wecc Mamadou Kébé benn waay la boo xam ne Touba la dëkk magama faatu ñu koy jiiñ moo ko faat bu nuppi so sànni ko ci foos bañ ko waxee loole ca kanamu policier la daanu xëm ndax mbetteel mu mu ci am soleil national dikk ak ñun ci soleil national mi am juróom fukki ak lu tekk xëy na di waxtaan ak Baara Diouf muy nittali interview bi nga xam ne def nañ ko ba noppi te mosu mosee su ko publier la tax mi ngi ci biir yéenekaay bi enquête dikk ak ñun ci faux billets yeeg mbiri banditisme yi nga xamante ne ji ña koy def lu dëgg gisuluñ gisuñu leen ca kaw la ñuy nekk di def la ñuy def gis na ne daal euh, fléau la boo xamante ne ji li muy yàq kan bari na le quotidien dikk ak ci coppite yu am ci magistrature Sénégal nee na Macky Sall kon yëngal na magistrature bi Cheikh Tidiane Koulibaly wutu na Mamadou Badio Camara ca cour suprême dem Demba Kandji gaare ji na ca garage su présidence de la république grand place dikk ak ñun ci kàddu yu mu nangoo ci Amadou Ahmed Ndir mooy directeur général bu Anne Fishing Sénégal nee na gay pes weesu ludul mafia grand place xamal nañu it ne maam góor Diazaka dañ ko jox ci aide à la presse bi loolee la journaliste yi ne du ñu ko dégg ndax lu mu war a def daal bañ koy jox ci aide à la presse bi jaaxal na leen sur soit dikk ak ñun ci xew-xewu jamono bu yéeme xale bu jigéen boo xamante ne ji kon ah, ab seetkat la mm, dafa am benn bàyyi peel bu jugee woon Gàmbi ñëw foofee am lu mu séq ak moom ba kook doom yaay je ba mu ah, ba mu ko yëgee dafa jël xale ba daal di koy sànni loole sur soit moo ñu ko wax. Vox Populi dikk ñun ci coowal faux billets yi nga xamante ne ji ña nga cay ruumandaat ne Pape Diop ak Farba Senghor dañ leen ciy tudd Vox Populi nee ñu muy Farba Senghor di Pape Diop ñoom ñëpp weddi ñu loolee kon ba mu set wecc lise ko dikk ak ñun ci ñaari mbir bokk na ci club des investisseurs du Sénégal nee na Madiambal Diagne ak Khadim Kébé démissionné nañu xamal nañu ne këruk euh, Abdoulaye Sylla gi nga xam ne waa Descos euh, ak compagnie dañu ko daaneel fële ca Saly Abdoulaye Sylla nee na nag doy na noppi euh, wakaam ngir ni ñu koy xaxaraka tapas ak di kom bii fa fore ñu dakkal ko ndax du caage naka du wax rek tax lu way yëkkati bëgg ko xëpp libération dikk ak ñun ci mbir mu doy waar ñaari xale yee ñu rendi woon fële ci diwaanu Touba seen baay bi ko def am nay révélation yu yéeme yu mu def ca enquête ba euh, lu doy waar sax euh, baxt damay bañ a yàq nit ñi moo tax jaru jaru ta yegg nañu xaar ba ci de conseil supérieur de la magistrature yan leçon la ñu a jàngat ci chamboulement bu yaatu bi ca am mooy li mu bind ci xëtamu njëkk turbine dikk ak ñun ci conseil supérieur bi nga xamante ne ji ca la ñu jëlee dogalu pour jël kii di euh, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly mu toog ca tooguk Mamadou Badio Camara Demba Kandji wutali présidence de la République ci naka loole turbine mi ngi koy leeral Sud Quotidien moom it ci loolee la xëy moom chamboulement bu rëy la ca gis réunion conseil supérieur magistrature gis na ne daal barina nay coppite yu ca am ñu dem ci yéenekaay bii di record waxtaane wàllu tàggat-yaram ñaar la xëyee nee na Kalidou Koulibaly ba léegi waa Manchester United teggiwuñu seen i gët ci ñoom 45 milliards moom la ñu teg ci taabal ji Souleymane Camara Petit Jules journal bi ne ñu kii di Oumar Daf dëggal na ne retraité na maanaam jël na retraitam kii soog a toll ci ki ki nga xam ne moom mi ngi soog a tàmbali di football kat bi di Haaland. Mhm. Haaland nag boo ko déggee doomu Norvège la boo xam ne. koy wax le phénomène Haaland. voilà ma nga noona ma nga noona moom euh, moom la stade yéen kay xëyee nee na moo gën a fort Messi gën a taqe Cristiano Ronaldo ci naka mooy fii mu toll nii ba fa ñooñee di toll li muy def moom alaan mii ñooña defuñu ko woon. te daanaka dañoo reprendre euh, Allemagne rek mu dugal. waa mu ngi noona moom kay. moom daal bel camp yi rek lay gis. xalaan daal mi ngi noonu xalaan la rek. Hmm. ñu jeexalee ak sunu làmb mi di kay ñun ci Modou Lo Balla Gaye 2 Bombardier Eumeu Sène nee na rivalité bu dul jeex mukk ci diggante ñaari ancien roi des arènes loole moom la sunu làmb xëy dem maa ngi lay wax càppaaculi maag yow yëpp càppaaculi umpuñu. Mm. càppaaculi ndeke mooy Boy Niang numéro 2. ngeen jëf ni waa ki neen ci biiri doom mooy professeur Moussa ci gestion covid fii ci Sénégal l'observateur bind ci xëtamu njëkk ne professeur Seydi mooy lu ci yu toog téye boppam leeral nañu it li indi ak ñàkk déggom diggëm ak waa ministère de la santé coronavirus bi ci réew mi Vox Populi nee nañu dafa rakkaaju ci ñaari fan yi ñu génn ne waa ministère de la santé wàññi nañu lu jege ñaari téeméeri cas coronavirus ci yi ñu génn ci ñoom am na ci ñaar fukki faatu ci Sénégal ndax coronavirus bi Vox Populi nee nañu ma nga tollu léegi ci fanweeri nit ak ñett ci bésub démb bi am na yeneen ñetti doomi aadama yu faatu ci réew mi te nee nañu coronavirus bi moo leen rey leneen lu am ci corona bi ba Vox Populi xëy ñu ko yegge moo di ca Touba dafa am ñaari cas communautaire yu réer gaay yu dugg ci mbooy gi kenn xamul fan la ñu fare libération nañu mbiri kay boo koy seet ci ndakaaru gii la ndakaaru fi la jur jàngi coronavirus gi ëppe ne léegi tey ñu matal ñaari junni nit yu corona ci ndakaaru li koy dëggal journal libération nañu moo di ci diggante démb ak bërki démb ndakaaru am na cas coronavirus ak juróom fukk ak ñaari yees centre de traitement yi ci réew mi journal bi xamal nañu ne yu ca bari fees nañu dell bay tuur ñu dellu ci xët mu njëkk l'observateur fekki fa kàdduy professeur Makhtar Camara moo jiite service unité bactériologie ak urologie ci hôpital Dantec nee nañ ñi corona ñu faj leen ba ñu wér bu ñu jëlee seen deret mën nañu cee faj ñi amee cas garaaw beneen professeur bu xëy di feelu professeur Camara moo di professeur Massamba Diouf xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu épidémie ak ni muy doxee moom professeur Diouf mi ne ci Vox Populi ne wala jàngoroy coronavirus yi bu ñu ca jugee ci la ñuy duggee ci phase 4 bi mu di phase bi jàngoro ji di jeexee wax na ne bés bu ñu ubbee yoon yi bàyyi nit ñi ñuy dem ak a dikk di tukki nu mu leen neexee loolee moo di tëggal nañu mbooy ngaan coronavirus bi nu ko neex lay demee nu ko neex lay dikkee kenn dootu ko mën a te day doxi soxlaam soxla nit ñëpp la tribune nee nañu coronavirus bi yàq na leen ba ci korite green gi korite nga nar a am gaal yi tagga France te ñu andi leen démb journal bi nañu démb ca la wàcc ci ay dapoorub jas mat nañu ñaari téeméer waaye juróom-ñetti waxtu yi la mu di ko galéré galéré nañu lu rëy ndax ba ñu ni njëkk yegsi mu di bàyyi leen ñu dem seeni kër confiné fa seen bopp ñii ba ñu yegsee démb ca sali lañu leen yóbbu defal ay prélèvement bàyyi leen fa ñu war a xaar résultat yi ñi faatu bitim réew ndax coronavirus bi ñu leen di indi fii ci réew mi di leen fi denc le quotidien nañu Sénégal bii di Krépin Diatta ci la bokk am na ci ñoom ñoo xam ne bi ñu yegsee ñu sant leen ngir ñu isolé seen bopp dañoo bañ bañ askanu Saalum wi di sonn ak a jaaxle la Sénégal ne nañu moo waral Moodu Njaay Rahma ambassadeur itinérant wane boppam bu baax a baax ubbil journal bi moom mu Moodu Njaay ma ndimbal lu am solo day dayook maana la yëkkati baaxe ko région bu lax ngir ñu dimbandikoo ko ci jamonoy koor geeg korite geeg coronavirus bi la Sénégal nañu teel ko jiitu keroog ba président Macky Sall waxee ne fu doomi réew mi bu ko mënee na dugal loxom ci fond force Covid 19 njiital mouvement rahma di Modou Ndiaye bu dee am na ñu ko ci jiitu it barewul coow lu bari li ci club des investisseurs sénégalais tey la gën a takkarnaase ci journal yi Le Quotidien nañu jàppale gi ñenn ci ñoom doon jàppale Akilee ci coow li dox diggam ak Senelec moo leen tàmbale we xat moo waral Pape Babacar ngoom ne ñàkkoon a xam dëgg-dëgg li nekk ci contrat Senelec ak Akilee moo tax mu doxale woon ni mu doxale waaye mu ngi ciy jégalu mi ngi am woyof gu toll ni di jégalu képp koo xam ne taxawaayam dérancé na la baa mu la Sud Quotidien bind ci xëtam njëkk ne ñool ñool a giita ngas am ci club des investisseurs sénégalais Babacar jéggalu ci taxawaayam les éco nañu yamu ca nangu na ne jàppale gi mu doon jàppale Akile ak doon ko solal robub avocat da caa wone càggante gu mat sëkk ba tax mi ngi baalu àq képp ku ci am lu ko naqari li neex mi ngi ci xët mu njëkk anki dinekaay sondage bu ñu doon def jëme ko ci journaliste yeeg animateur yi waa Sénégal gën a bëgg sondage boobee résultat yi génn na waaye duma leen mën a yeggee classement bak na mu tëddee ndax dama caa bokk képp ku mu yitteel xooli ji ko ci page 7 bu enquête